njëkkante bi bus yi nekkee ci tali bi ñëpp nemmeeku nañ ko moo ne régulateur bi nee na garage yi dafa organisé. taala maanaam exemple 26 bi bii 10 minutes lay taxaw daxee 10 minutes day dem ni njëkkante bu amee ñoom ci ñoom la. waaw kenn lay génne mu war a mu war a dem wan du dem day taxaw fii di jéem a rek lekk waaw. chauffeur bi mi ngi duut baaraam naataangoowam yi. tey am na ci chauffeur yoo xam ne boo jilanteeg ñoom te ci tali bi sa xol day jeex tàkk dañ lay baare di la wéeru di la bomb xam nga ngir njëkkante ay client xëyal ci jàmm wàcc ci jàmm la lay sant yenn saay yi yenn saa yi da ngay gis chauffeur boo xam ne day njëkkanteeg morom bi ba narañ jaar ci kaw nit bu raayee bakk nu kooku fan la koy teg du ko teg fenn. xam nga luy njaak sëfoor yi ñooy njaak ci ñenn sëfoor yi ci yenn sëfoor yi laa la wax de yaa ngi man sama oto bi nga ma fekk su ma ko taalee xëy jàmm wàcc jàmm laa ñaan yàlla oto bu xëyee am juróomi junne bu xëyee am quinze lu ñu am ñu santee ko yàlla. mu nekk lu metti client yi. Sénégal moom pratiquement ni ñi moom dañuy bàyyi ba dara xew population bi door a jóg mais chaque jour ñu gis li ñuy chauffeur ni ñuy dawalee da ngay nekk si biir oto sax nga gis chauffeur bi dawal mu leer na kii dawal tegu ko si yoon. di dépasser nu ko neex ay oto di di dawale nu ko neex mais booy wax ak moom sa déjà du la faale. vraiment en tant que client ak kuy jël tata ñun rafetluwuñu ko. parce que dafa bëri ay risques. moo ne ay daan yu jëm ba juróomi junni sax xaj na si. dëgër bopp mel ni kon ay xeer kon ay xeer ñoo gën a wow sax xeeru konkorong wante loolu bu amee dañ leen defar rapport ñu dem wuyu ji Cap Trans mooy mooy safar yoo xam ne day dañoo dëgër bopp waaw buñ la buñ la buñ la buñ la ajee nag. da ngay toog ay huit jours après fay vingt cinq mille. jëkkante bi ci tali bi daanaka kenn rafetlu ko lu jóge ci transporteur yi chauffeur yi ba ci client yi ndax yar ak kaaraange lu ko waaye jëndee jar na ko ci kàddu yi ñu waxtaanal.